fédération bi nga xam ne moom la Serigne Saliou Mbacké tuddee woon Zadul Musafir nekkee ci réewum Canada ci njiital Serigne Moussa Dieng ëmb ay daayira yu bari yoo xam ne ñoo nekk ci moomi la réew bokk na ci Zadul Musafir bu Montréal Safinatul Amaan bu Calgary Safinatul Amaan bu Winnipeg ak Safinatul Amaan bu Edmonton Safinatul Amaan bu Trois-Rivières Kanzul Muhtadin bi nekkee ci Québec ak Nuuru Daarayni bu monton Jaalibatul Maraaxib bu Rimouski daayira Soxna Jaara yi ak waa bernde 18 safar ak mbooleem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada ñoo yabaloon délégation ñu ñëw ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides doon indi seen addiya mu jëm ci liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne moom la Serigne bi di liggéey fii fi Touba Mbacké liggéey bi nag ñoom taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada fas yéene ko ànd ak Serigne bi moo tax juróom benn weer yu ne ñu ñëw indi seen addiya mu jëm ci liggéeyub complexe boobule. bi ñuy indi addiya ji nag ñu ngi ci ànd ak sëriñ Basiiru Mbàkke ko mi nga xam ne moom la leen sëriñ bi booleel muy seenu jëwrin bi ñu agsee leeral nañ mboolem liggéey bi sëriñ Muntaxa Mbàkke Bachir mu àndi ceeg mbégte lool mbokki taalibe ndax dañoo mën ay daayira ci dëkk yi itam muy ci Montréal ci Edmonton ci Calgary ak Québec yëpp léegi nag ñu mujj def fédération muy tabi Moussa Moussa Kala jiite Kala Moussa Dieng ànd nañ ci Moussa Dieng waaw te mu doon defar film yi ci doon ko def programme ci Bangal léegi nag ñoom ñu ñu andi yàlla ci bëri ñoo di fukki million ak ñeent 14 millions 410 mille. 410 mille 410 mille waaw damay gën ñoom ñii rek la ñuy jot dañu xam ne seen liggéey bi ah. ñoom ñoo bëggoon ñu wax ko ñu dégg ñoom ñoo bëggoon ñu wax ko ñu dégg xam nga sëñ bi gis na leen gis na leen yéen ñëpp sëñ bi mu ne am ngeen tawfeex ju rëy ndax sëñ bas li ngeen àndal lépp ngeen jëw li ñu ànd ak moom jaar la ko ci moom loolu tawfeex la ci yéen أكمت يا أكم باقي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله على يا عدل داي بخير لقاف ولا لراري وليم ginnaaw ziar bi nag mbooloo mi dem nañ ci kër basiiru Bassirou Mbacke Xelkom santaat ko bu baax a baax gërëm ko ci taxawaayam jëmee ci Zadul Musafir ak mboolem taalibe yi nga xam ne ñoo nekkee ci réewum Canada. mbokki taalibe jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom lañ bàyyi fale sunu boroom kàttanal leen kàttanal nu dafa ñu tawféex ñu dajee ci ngërëmu Seexul Xadim ba ñu jàgg ko mën a def rek mm-hmm. barki Seexul Xadim muy ñi nekk ak ñeneen fële ñëpp. nga defal ñu ñaan daal ba kenn ku nekk li mu mébét rek mm-hmm. suñu borom defal ko ci ak jàppandal mm-hmm. te mu dëppoog ni ko sëñ bi bëggee mm-hmm. xam naa ni loolu foofu moom daanaka <laughs> mënuñ cee yokk dara dañuy tubaat bu wér a wér nag ci coono yeeg kàddu yeeg lépp rek waaw ñu ngi bu baax